moo ñemee yàlla mooy des. mais ci mag maanaam ñu koy diriger ñu koy imposer. waaw ah, xam nga mooy mooy li ma la njëkkoon wax sama biir wax. nee la sportif mooy nekk mbër. mooy mm-hmm. nga nangu ñu diriger la. Mm-hmm. boo ko nangul doo am ndam. parce que da nga bëgg di di dab say morom si ay millions. Mm-hmm. bëgg a dab say morom si ay si bu baax. boo nga nangu ñu teg la si yoon. boo ko nangul rek chaque jour boo daanee tey suba da daanu. suba ginnaaw suba nga daan noonu mais l'essentiel bu ñu lay daan. bu ñu hmm. wax ca mbay. Hmm. nañu wax kii hmm. gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama loolu laa loolu laay xaar ci champion man. parce que moom Tafatine daaru na mais teewul vraiment nit ñi dañu am. si moom si parce que entraîné na indi na yaram bu baax gisoo yaram dafa centré. amul biir. musculation bu baax la def. peut-être defet moo ñëw rek mais entrement bu baax a baax la def. Mmh, intense waaw bu intense sax. la. parce que jooy na foofu métti. noonu la mel noonu la mel. noonu la mel moom bëggul combat bi jeexee man maa dem seen kër encouragé ko ne ko da ngeen di ñëwaat. ñëw mmh. champion nga da nga war a ñëwaat. làmb ji soxla na la. Mmh. te booy yëpp ñu ngi sa ñu ngi sa ginnaaw. gars yi dañ ko bëgg. c'est léegi nag da ngay ñëwaat amaat gën a gën a gën a yokkaat cere yi dolli ñeex. dolli foofu la rek. Kër Subaara Eumeu Sène na nga gisee performance am par rapport ak âge bi mu am vraiment te à chaque fois ñu gis ne heure bu ko rek ñi dañu am satisfaction ci état de forme bi. non moom doon hmm. hmm. parce que mooy li coach wax sànq. Hmm. Eumeu Sène dafa am benn amour bu muy muy doxaale. mooy maanaam amour dafa bëgg référence la si ñaari côté. na ko si mag. waaye euh, aussi ku xool palmarès sam parcours am mu xaar. mu xaar xam nga dama bëggoon ñëw foofu. Mhm. mais dama doon bàyyi nga terminer kii parce que ëmm tey tey tey bu mujj bi rek day am lu mu jàngalaat. Mhm. mooy lu làmb. Mhm. parce que tey mooy lu kii di wax gis nga tey Eumeu Sène am na lu mu doon ñëwee Tapha am na lu mu ko doon daanee. mooy Eumeu Sène kenn ko delloosiwaat am lu mu doon daanoo ak nu mu doon ñëwee moom. après bu ñibbee moom du xaar sax koko ne bàyyi làmb moom mooy bàyyi làmb mais Eumeu Sène làmb moo ko téye sa parce que xamal lan la la ni mu ñëwee la mm-hmm. su meeku ne mel nu mu mel su meeku nekkaat bu ndaw te xoola boo xoolee différence de âge moom dee bariwul bari boobu Eumeu mm-hmm. moom ak mm-hmm. mais Tafatine du ko boo xoolee état de forme yi da nga xam ne du benn mm. parce que tey Eumeu bu bu bu ñu weccewoo ku mook Tafatine mu dóor ko Tafatine jaayoo dem parce que sax booy seet defet moo ñëw mais am na nu doon ximmalikoo sax bu ko bu ma xee mu da mais xam ak njàmbaaram mu daw jàppanteeg moom waa ji ximmaliko parce que am na ñoo xam ne bu jëlee ko boo leen laale rek ñu ximmaliko mm-hmm. dafa tin bokk si façon nit yooyu mais bi ko ëmb dóoree lu bëri moo jóge ci moom boo ko bu ma xoon sax bëri bi jeex mais loo ci mën a dégg mooy Eumeu seen nekk na ndaanaanu bërikat boo xam ni lu mu am ci làmb rek mérité na ko mm-hmm. jàmbaar la ci côté yëpp mm-hmm. xaar na làmbam metti na metti metti metti mu xaar Mhm. mooy olof di wax kuy def bu mettee rek nga daw buy neex du la fa fekk da neex du dëgg ba pare tamit mu nekk ndaanaanu bërekat foo takk bëri bi moom bëri bi na ko mhm. mhm. kon bu ñëwee mel nii tamit ba pare boo xool mooy doyen làmb ju guddi ñu toll mais tey xale bu mu si summeenkonteel boo moytul mën nga koy seetaan sax ba mu daan la ci état la na ñoo dëgg tamit quoi waaw sëñ Seexuna combat baa ngi nii combat bi nii loo ñu si mën a jàggate fii moom sañ Alla moom xam naa ne moom sonaloon na caatu Rebeuss quoi que Thiatou Rebeuss malheureusement dafa ñëw ah xàmmewuñu ko combat bi bëri woon coow bëri tension mu nekk ñaari xale su ma juumul bi mu nekkoon seen premier grand combat ñoom ñaar. Ah, waaw ñu ñëw aussi feesal stade bi macha allah ci ay xale stade bi fees dell. mais bi arbitre sifflé daal man daal vraiment j'ai pas compris waaw Thiatou Rebeuss bëriwul xeexul loolu galaaj la voilà. kon aussi la parole est ouverte lii lii da naan lii gàllaaj la. <laughs> wala lan la parce que aussi ñu lay.

saa bu bëggee teggi tegaat wala saa buñ ko bëggee li mu nanguwut a arrière nanguwut a daw xamal ne kooku yeew nañ ko mm. loolu maa ngi leen koy dénk barke alxuraanu karim mm. gis nga yeew buñ la ko defee mm. mënoo muusa ko waane muusa ko waane ba loxo bu buñ ko doon yëkkati di ko dóor yow li ngay def nag mooy da nga def sa cër yi nga xam ne yàlla def na ko ci yow da nga ko jéem a yëkkati waaye mënoo xam fu ab dóor lu jógee wala fu leen jógee dootu da nga maanaam sa cër yëpp ay bàyyi lépp loo yëkkati da ngay tàndatu rek da nga dem ba bëree ba pare ndax bu ñu bëree pare dañ maanaam ki kay xam ne mooy fas. Mhm. boo saa boo bëree ba pare bu la bëggee dimbali. Mhm. dina dem dina dem dindi ko. Mhm. nga doog a nekkaat nit doog a da ngay gis koo xam ne day daanu rek ñu gaaw dindi ko mu ne lii lan la lu xew. yaa ngeen ko gis dóor sax amul daanaka mais. yaa ngeen gis ci mbéy boo seetloo dañ jàppante. mais ay épaule la koy dóor di ko sañaxal coach Bolo lii ah. aussi si mbër waaw boo xoolee maanaam. yéeme na de. waaw ah. mystique mystique dëgg la lii lii combat bi combat bi. bi li si laxasu woon dafa bari. parce que ñu bari dañ ne woon booy bi lu tax mu jël Thiatou Rebeuss Thiatou Rebeuss ko man bu ko jàppee combat bi du doy. waaw àdduna bi yëpp loolu lañ doon wax. waaw bi du yomb. parce que sax da ngay gis Thiatou Rebeuss bi def ak moom face à face da koy tëg ay dënn bëgg di koy jàpp di koy zongale. bëgg koo bëgg koo imposer doole. Mhm. gars yi sax la jekkoo ci gàllaaj. waaw ñoo lay wut. <laughs> waaw ñoo lay duma ñoo lay daal <laughs> dèjà ndax dañuy xam fi ñu féere dañuy xam ne ñoom pare nañ ci yow mhm. waaw buukar te bu ñëwee saa bu ñëwee danañ tànnatu xool. côté boobu buukar tamit. moo tax mbër kenn du ko xeeb. waaw nga koy tëkku ba amee mbokk. ko nuyoo moom Thiatou Rebeuss. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. jàmbaar la la te champion la. te mën naa ñëwaat si làmb ji amaat fi parce que ay moroom a fi nekk Thiatou Rebeuss mi kenn daa ko bëri. daanaan bu mag la ndax na mbooloo bu jugee waa Rebeuss yëpp dañuy jóg. gis nga keroog di mu feesale stade bi bi fees del. Mm-hmm. macha allah mu doonoon combat bu neex ñu ay ndaanaan ñoom ñaar ñëpp waaw mais est-ce que aussi loolu aussi du am njeexital aussi si mbër ñu takk la jàppale si galaaj ba waxuma la sax combat waaye soo moytuwul sax lamb moom. fi nga xam nga loolu aussi dafa mel moo tax ñu ne la avant combat combat la jour combat combat la moo tax boo doonee mbër mhm. xam nga dama lay wax naa ne mbër sax li fi mu war a gën a fonke mystique mhm. mooy bu bëree ba pare mhm. bu ba pare fexe génn leen def si yaramam mbër na la takk mbër na la sëf mbër na la xabtal mbër nañ la suul si ay tàng-tàng fu nekk mm-hmm. ay armée la fu ne lan lay suul li way xànjar yi moo tax mbër bu la si <laughs> gars yi defee li nga ba nga ah. bëre ba pare yow fexeel yow na toog benn 15 jours dugg si àll bi waaw dëgg la fexe raxasaat sa yaram ba mu set bala ngay jëlaat beneen combat wala am na jàpp yu nga xam ne bu la ko jàppee nga jël beneen i combat te loolu dëjul sa yaram boo jëmaatee sa làmb ja da nelaw boo demee dañ lay daan dañ lay daan da ngay nelaw dëgg la musique baaxul. baaxul musique yaa ngi si yàlla ndax moom bu xasee ba des man maa raw mm-hmm. mm. man barke alxuraan su war naa mat huit soo wala dix soo. Mm. kon su ma loolu aussi mel ni aussi loolu ay gis mbër jékki-jékki amee genou mbër jékki-jékki amee épaule mbër jékki-jékki ñu dafa amee ndigg mm. loolu aussi dafa dañ koy gis yéen yi nag souvent dañu naan entraînement bu jaarul yoon la si ñenn ñi wala ñenn si entraînement la leen di dalee te amaana mën a nekk na ñoom sëñ àlla moo wekki mbagg yi bi fële mu ñëw saal pause tuuti mën na bañ a lu diis sax mbagg bi wekkee ko loolu aussi dafa mel ni dalee. waaw loolu bu dee bu dee bu dee yow yaa ngi koy di ko bàyyi xel. waaw parce que tey nit mënoo ko def loolu mu mënul quoi. lu mu mënul d' abord entraînement technique la. Mhm. waaw bu intense sax dafay gaañ la. day gaañ nit de. entraînement bu intense. te teggiwoo sa tànk. day day teggiwoo sa loxo day gaañ nit. mbër day am combat entraîné wul entraîné wul ba combat bay waaw loolu parce que loolu si ñi koy encadré lay nekk rek. parce que mbër warul diriger boppam si lépp si côté sport. côté sport nit war a diriger moom xam nga lan la war a récupérer. Hmm. mooy muy récupérer. Hmm. lekk bu baax mais saa bu ñëwee dafa war a joxe boppam te ku muy jox boppam kooku dafa war a xam la mooy yaramam lan mooy yaramam lu mu antal ak lu mu antalul bu pare bu combat bi bu jegee nii la ko war a defal ak ah lii ak ah lii mu bañ a gaañ. Hmm. loolu da nit da nga war a bàyyi xel bu baax ki koy entraîner muy contact ak. muy kuy koy defal boxe ki koy defal musculation yëpp. da nga war a xam noo koy entraîner. pour mu bañ a gaañ entre entraînement ak gaañ ñoo si biir entraînement si biir entraînement bi. dañuy mhm. ay genoux boo ko amee na lu muy am na wala yooyu bu dee cheville dañuy naan dawal suuf affaire yooyu. Ah, noonu parce que tey jii boo gaañoo gaañ boo xam ne. ay nga dem si médecin mhm. mu rajol la ko xoolal lan la mhm. bu dee wàllu médecin la mhm. moom mu wax la garab gi nga war a jël boo ñëwee nga entraîné waat nànk-nànk ba dabaat sa forme mais di di di sooxaale blessure moom mhm, boo xam ne boo xam ne waaw day yàq sa forme chaque jour gaañ-gaañ bi day gën a xóot day gën a continuer waaw chaque jour daal bu dee gaañ-gaañ dafa sérieux demal si médecin mu xoolal la après boo ñëwee si coach bi wax pour teg la si yoon. Kër Soubar mbër bu mel ni Boy Seye yaa ko yor tey mu doon waajal combat capital diggante ma Anaconda. Ah. ñu ne si bële si si si entraînement la amee blessure loolu mën nga si ñëwaat. waaw ci entraînement la amee blessure wax dëgg yàlla. Mm-hmm. parce que Lamine moom bu waxul dëgg rek day wax fenn. Mm-hmm. ku loolu xaq wala kaamuram. Mm-hmm. parce euh, parce que booy seet sax. bu combat bi dese ay douze jours yooyu. waaw ci la gaañu ci la gaañu. waaw ci ay séance contact yu ndaw nii rek. Hmm. contact technique sax lañ doon def kon xam nga gaañu day bette parce nit. Hmm. man sama grand frère dugg na salle de bain di hmm. a rek. mooy loolu kon ko domaine làmb la. li ma la mën a wax mooy sëy dafa gaañ. parce bu dee ñenn ñi aussi fi ñuy gisee mooy dañ naan non c'est pas professionnel. non di gaañu yéen parce dañ gis ren bi. li mbër dugal ay médical aussi vraiment. ñun moom Seye boo xoolee mi ngi si 16 combats mi ngi doog a dugal médical. Mhm. am na ñuy wax naan Seye dugal na médical ñaari yoon nangam nangam Seye combat moo Cheikh ci per jamono Cheikh ci per jamono moo dugal médical. moo dugalul médical de. Mhm. Cheikh moo mhm. bi ñëwee ñu dem ba jàppaat bi ba dugal ci benn journée boo xam ne Seye moom moo ne Assane Ndiaye mi ngi may dégg. Seye li lu tax bëreewul Seye bu problème médical dafa ne Assane Ndiaye ñii nga ma bëgg a dugal du leen bëreel spécial. parce que bokkuma ak ñoom catégorie ci làmb bi ma nekk fi ma li ma bëree bëree wuñ ko ñi ma hmm. bëreel bëree wuñoo ñooñu. Hmm. loolu moo indi deuxième combat bi ñu ko jàppee say bëreewul. bëreewul moo muy def lii non non hmm. nit booy wax dara da wax loo xam da nga xam maîtriser ko. say dafa gaañu. te say bu la wanoon tey maanaam ki gaañ moo lay wan ni xam nga tey fi doon nii bu nee day de professionnel rek mënatoo ko bañ c'est parce que fi gaañoo la. Mhm. te boo seet tamit sëy fi mu gaañoo mënoo ko téye mu bañ a entraîné parce que combat bu des presque douze jours xaw ma quinze. foo nga contact foo nga entraîné kooku borom day contact. Mhm. surtout combat capital boo xam ne sëy. Mhm. tey bu làmbam jaaroon yoon sëy du bëre ak Anaconda. du bëre ak Anaconda daanaan la ñoom ñoo bëree ndoo ñoom Issa am sëy ak Anaconda ñoo bokk benn année bu duggee ci bëre. Hmm. est que bokkuñu benn semaine bu bëree.